di bis bu rëy di xam ni wàccuwaayu si yàlla suñu borom wa taala màgg na lool di bisu taw feex di suñu njot lépp nag jàmbaar bi tëdd jii di Mouhamadou Abdoulaye Yaqin yàlla na ko saa borom doole fayal bu taas si barkeem bu dafa am fitna ju mag yoo xam ni dafa wàcc si daanu dunia muy daal deuxième guerre mondiale jamono boobu sëriñ bi dem na Cheikh Ibra dem na borom bi moo fi des bis ndaw daal di ñëw fekk fii ñu ko sabaram nee na am na balaa bu mag boo xam ne day wàcc daaru dunia te balaa boobu kat su wàccee ñëpp lay dal te ku mu dal doo mucc mu daal ñu dénteeg boromam ñu ko xanaa du ma nekk si kaw suuf ba noppi lu mel noonu di wàcc sa si sañ-sañ ba ndax faaw leen li ma ñu ñu dogal nañ ko ba noppi kenn mu tëddee ba du wàcc. bu ko wér Abdoulaye ñaq yi déntuwaat ak boromam. di ko damaa bëgg li nga nar a teg mboolem adduna nga teg ma ko man teg te adduna jëpp mucc sama ni ko ndax di ko attan di ma nar teg ñëpp ma teg la ko yow daw ñu ko dinaa ko attan mu ne ko su ma la ko tegee di ma lay teg boo demee ba si biir ba ma gis ni di ma la teg metti na ma gis si benn mandarga bu bàyyi ko sa jëmm ji su boobaa la ma jaayante woon yow dinaa ko xaaj te dama yem si xàcc ko boole ñi nga garanti woon ñëpp saara lañ jëm kon responsabilité boobu sëñ Modou Mbaye Sarr àdduna ñëpp la la garanti woon du Cees saw jant àdduna ñëpp la garanti kon bis bii bisu njot la mu daal di signé sama borom signé war a dugg nag si natt bu diis natt bu mag bisim keroog la koy jabootam soxna Maguette Aïdara woo saxabatul kiraam xabaar leen ni dañu war a dugg si natt bu méttee métti daanaka juróom-benn la ñuy yend fi moom juróom-benn la ñuy faral fi moom ñun si jublu nag du tàggee ni dañ koy dimbalee dara si natt bi waaye nit ki la jowoon seeratu akbar ñu ma doon seere ci kanamu yàlla sama borom subhanahu wa taala su xasee ba tëdd lu yàgg yàgg ba mu tëdd ba mu toqi tëddee gënal wet nee na lépp lu mu jëfandikoo yaa xam muy lekk wala muy naan leer lay doon mook tawat gi moo tawat gi mook tawat gi tawat gi ngacc na ko ba mu jeex rek te ku nekk xamoon a dayoom doom bi tëdd yi soxna Salma nee na demoon na ba marché ak lal bi ci yan saa dañ koy gis bu tëdd ay waxtu yu takk duñ gis mu nooyi bañ jàpp ñu nekkatul ci kaw suuf waaye day jékki-jékki ni subhaanallahi bu sàbbaalee boromam fépp di riir ñu xam ne bu tëdd kaa ngi ci kaw suuf bu tëdd ko ñaari weer ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ñaari weer ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett da tëdd da tëdd natt ci ñaar ak juróom-ñett ci fajar ndaw li ko xabaaroon natt bi del siwaat fii ñu ko sa borom nee na bis ñu tey li ma la tegoon teggi na bi mu nekk bisu mbégte nekk bisu xéewal nekk bisu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala li ko njëkk a gis ci fajar gi li ko njëkk a gis ak melo yu amee dañoo tiit dañoo daw daal ni kañ xamoon du kii waaye saa borom si coobareem moo del si waat jëmm ji mel na meloon ñu doog ko mën mu dajale njaboot bi ak mboolem taalibe bi yëpp jaral lu nekk rey na ko fii rey nay gileem rey nay baa rey nay xar lépp def na ko xeetu ni daañu da ngeen sant yàlla bu baax ndax balaa bii jëmoon si adduna ma ñeewante leen sukkandiku ko arsalnaaka bi rahmatan lil aalamiin gàttandu ko ba tey saa borom dégg ko mu ne kon bisu bi saa jox na leen bis booba yattifu anil bawa bis ni ki tey jox na leen bis mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñett si weeru gàmm mu ne bis ni ki tey loolu ñuy wax kon baatu màggal la bu tëj di wax baatu màggal la bis ni ki tey loolu na fi yéen waajib la bu fekkati si kaw suuf borom mën a bindal loo mën ak loo mënul nañ ko def si bés bi daal ni yandul naa leen seenu nattu seen màggal loo 1941 la ko def